tey nag li ñu indi mooy euh, loo xamante ni yaakaar naa ni day farata ci Sénégal mm-hmm. euh, muy am pecc moo xamante ni wax dëgg yàlla pecc mu silwiise la ndax du génn du indi suuf sama gis-gis pecc mi daal xam naa ni euh, dañuy wax Abdou Top moom mu indi ñu ko rek bu ñëwee mu feede weer bi tey am pecc mu doy waar la bu ngeen si waxee seen xalaat ba pare ñu wax si suñu xalaat ñu tëj ko doog dem si leneen li mais feede weer bi daal tey am pecc la mu xew si Sénégal di pecc moo xamante ni man jàpp naa ne farata macha allah sama xol bi sedd na de <laughs> Moodu vraiment sama xol bi sedd na xam nga mais fecc mii dafa silbissé mhm. te fecc macha allah dafa war a silbissé bandi noo gisee lii xew Assane noo rey nga ma ma dee ndax nee naa la nga baal mi mais doo ko def doo ci yem Assane li musul service xam nga guus guus gee gën a doy waar sax ah. sàllan jikko bi xam nga fecc bi dafa démb ñu ngi ñaanal tànday xadi ñang fa mu tëdd yal na yaxam sedd mhm. te yàlla jegul ko ay bàkkaar ndax fecc démb li service man ci sama jàpp ci civilisation mhm. mooy ndaw rabin gu ànd ak duus gu ànd ak gu mm, diig am ñu koy fecce may ma ma ñëw rek Assane nga def say sëri maam def say pellal def say juróom-ñaari sër yenn saa nga génne yenn saa nga def nii ba pare say pooj sa dara du feeñ ah pooj kay nag démb moom pooj daraan feeñ waaye ma mukk démb pooj feeñ asal démb pooj feeñ mag ñi fekk simisé la daan feeñ waaye bu simisé pooj daraan feeñ yow daa sabar doo seetaan sabar. bu silwise sabar pooj da daan feeñ. bu silwise xam naa ne yow moom mënukatu sabar nga woon. Assane yow yaa xam diiru sabar waaw pooj da daan feeñ. Hmm. xam nga ne gis-gis gi fecc mën na silwise nii parce que mais daaneel gaa métti Assane. Hmm. di gis-gis nga naan rëj rëj sukku say oom. Hmm. Assane yow loolu sa xel te yow. Ah, loolu mel ni kuy alifas lu ko jar. boobu fecc nga ne Assane dafa sedd sa bi di di di di noonu ba maara détail sedd na moom fecc bi mhm. kon daaneel baa lay bëgg rek Assane génn ci li nga nekk la la fecc ba jox xam naa ko mhm. génn ci li nga nekk fecc bi mhm. mosul rafet xale yi nañ defaraat seen toogaay parce que li may wax à chaque fois répétition est pédagogique la net n'est net lii yëpp l'histoire retiendra parce que ñoom dañuy jur doom fecc bi waxuma la dara mais métti na métti goo xam ne jurutuñ parce que yu métti yi def mouvement yi ñuy def yu vulgaire yi ñuy def seen jumbax yi ngelaw di ci dugg seytaane di ci dugg baaxul nga jàpp sa jumbax awra génne sa jumbax jigéen dañ ne lépp awraam la non donc pourquoi façon fecc bii ki ko génne tooñ nañu xam naa ne na yow seet na sa xol guy yow ni wanagu mboot mais ki ko génne nii dañ koo war a sanction ana ana ana paa boobu noonu jamra hmm. xanaa jamra gisul li <laughs> jamra bi doon kaas anytime lii moom anytime bokk nekk bàyyi moo de la même famille xanaa xam neex le Sénégal ah. vidéo yëpp gars dañ ko am waaye muy seetaan nii. <laughs> du samay wax xalam day seet. guy maam dara umpatu ko. dara umpatu ko si samay wax waaye gis-gis gi daal ca daaneel ga war na cee mën a wax na xale ni sàgganoo baaxul. man rafetlu moo ko asal. am na solo di noo gisee gis-gis yi. neex. neex rek. rafet. pare nga pour ñu defal la ko de. ah waaw. man damay suus. da ngay suus. mais li dara nekku ci. ah ah dëgg yàlla. lu ci nekk. ah, ah Assane xam nga lu am ba am mooy fecc bi lëmbal la rek. te suñu maam yi dañ ko daan fecc Mhm. peut-être xale yee mm. changé daaneel gi rek naan ko gi rek mais bu njëkk tamit dañ daan lëmbal di sol ay crop top di teg bin bin seetaanoo clip bu faatu euh, euh, faatu lawbe bi mm. li li nga xam ne moom la suñ tataay sol foofu mm. maanaam sori goo xam ne genre comme dans genre soie la mm-hmm. loolu dara dakaa gën a sexy mm-hmm. jël li nga xam moo di seen yére fii la yëpp teg seen i bin bin di lëmbal nam gën a baree nag mm-hmm. pour man li dara nekku ci neexal bés la rek de buñ ci tollee dañ koy def waaye buñ <laughs> koy def ay xale lañ kii ñi amul suux ci daal dañ ko bàyyi du pour ñoom du ñaaw du pour ñoom eh, ñi pour kii la hmm. ñi wang ñi ah, mais bii topp teg am na solo am na ñoo xamante ni tey ji dañuy sol sindiñ gu tuuti goo xamante li mu weesoo silib bi bëriwut après ñu daal ci teg ab grand boubou comme sa grand boubou bi mais bu ñu defee ci bu ñu waree grand boubou bi rek après sa àdduna day tukki non loolu moom loolu moom je suis d'accord moom boobu nag moom yooyu dañ ko mënta jàllale nice waaw mhm. mais bii moom silvissé na macha allah ndax sol nañ séer bu jot. wax dëgg yàlla fecc ko teg ko si yoon Moodu noo gisee fecc bi. waaw maa ngi koy gis euh, nit ñi mu nekk lu xew bees ci jamono nit ñi di ko fecc man li ma ci njëkk a choqué mooy bi muy soog a génn xëccoo bi ci am. maa ko moom maa ko moom loolu moom ci njëkk a choqué en fait. Mhm. mais nag euh, jamono yàgg na ak lii jamono yàgg na ak lii léegi li ko soppi mooy réseaux sociaux yi maanaam ku ci nekk mën nga ko wane. bu mhm. njëkkoon xëy na benn télé ngay am benn rajo lu bari daawul feeñ. mais tey jii nii xëy na ñun bi ñuy gën a nekk xale daanaka fecc bi moom ventilateur benn la. Mm-hmm. c'est que ventilateur mu didi wax na ko wax na la ko. Ah. c'est que ventilateur daan c'est bi dafa am da wàcc am temps daara yéeg. Mm-hmm. mais ventilateur da nga doon sukk jàpp rek téye ko foofu noonu. Mm-hmm. xam nga kon benn la woon mais boobu nag parce que bu waree taat la boobu nag euh, ni ñu koy waxeeti jamono téléphone amul. maanaam nekkul lu ñuy lu ñuy fësal. kon nag mook jamono ñoo ànd. waaw léegi nag euh, c'est malheureux. léegi Sénégal bu dara xewee rek maanaam bu ñu xool ndax lu baax la wala lu bon la mm-hmm. ñëppay roy mm-hmm. ñëppay roy fecc yàgg na ci jamono fecc génne sa cër tamit yàgg na mm-hmm. ndax Youssou Ndour am na benn way bu muy way wëndeelu naan fecc sabar génne say cër loolu daa yiiwu kon cër yàgg naa génn ci fecc wante nag euh, bam bi dafa cité koo xam ne suñu yaay Ndey yi doon na woddu sur yu bari nga xam ne bu tëbee cëram du feeñ waaw te loolu am na ñu bari ñoo xam ne dañ ko doon def ci lébu gi ci yeneen ak yeneen mais léegi nag quand xale yi jël nañu baax jël cuissard mhm. foog ne awra daanaka li ñuy nëbb kese la alors que jigéen awraam gën na sori loolu ah, bind wi bind bi xëy na oustaz bi nga xam ne moom mooy nekk ci wàllu diine dina ci war wax mhm. mais daal ñëw aj dese benn baag ak mhm. benn be beccoo wala noo ko mën tuddee di yëngal say cër xëñ na loolu mun nañ seet lu ko gën a rafet réew mi nag xëy na nag dañoo nekk ci état laïque am na loo xam ne Mame Matar Gueye mënu ci dara ah. état sax mënu waaw état sax mënu ci dara ñun ñoo nangu ñu diriger ñu ci régime laïque waaw yenn nag mun naa nekk maanaam bu demee ba commencé heurter loolu mun na am mais bu ñu ko yemale ci benn néeg mhm. kenn filmé wul mhm. mu yem seen biir état mënu leen jotee jotele dara mhm. léegi nag bu ñu ko filmé ba génnee ko ci mbedd bi foofu la attentat à la di duggee yeneen ak yeneen di dugg mais daal xale yi nañ gën a bàyyiwaat seen xel xam ne lii kese du àdduna àdduna leneen la du lii ndax fecc yi fi xew bari na bari bu ñu doon lim dinañ fi lim ba jug te fecc yi du jeex bu ñëw day weesu mhm. fecc la day weesu léegi beneen dina ñëw mhm. mais xale yi nañu gën a concentré wu ci yar wi mhm. ci teggin wi xam ne cëru jigéen nekkul sol cuissard rek mu jëm say oom nga jàppali desem maanaam ni muy marqué sa yaram rek loolu sax déjà lu ñu lu ñu lu ñu cible kon xale yi nañ gën bàyyi seen xel ci li ñuy def ci li ñuy def la ci yokkal ne yombalal xale yi di gins xam nga attentat pudeur boobu nga doon wax da nga daan gis góor gu manqué xale bu waye taxaw ci sabar di yundu di yàq boppam di kontaan di gins si siri bu jàmbur ñu baal ma ci moo bi wala beeto seetu wala nga jël seetu teg ko ci ron lii nii xale yi fi ñu la ñu toog di excité wu kon moo leen wan ni baaxul lii dañ cee a wax tamit c'est pas normal mais na yeneen yi musul silvisé parce que yii baaxul day yëngal xale yi non non non bii mun ta yëngal kenn da ngaa fiir nag baax non ko defee nii ñoom bii moom wax dëgg yàlla man gisuma ni wax dëgg yàlla aay na oustaz lii de képp ku am xew te defaloo ko sa soxna dañu yaakaar ni maam tëraloo ko maam ku am saw xew boo ko defudul sa soxna gàcceel nga sa soxna si kaw kanami nawleem mm. ba si ki nga xam ne moo ñu jiite sax di suñu yaakaar fii si Dakaaru mm-hmm. bi mu xewee da ko bàyyi ay doomam def ko mu organiser ko dooleel leen muy Macky yu fay muy kan Macky yu fay mu yore grand euh, kii bi Macky yu fay waaw nga xamante ni kon jàpp nañu ni lu lu sax la te jàpp nañu ni mënoo koo génne si diine mm-hmm. euh, noo gisee fecc mi ak ak ku xewle far force danga ko def pour sagal boo ko deful rek sagaloo sagaloo sa njaboot mm-hmm. waaw bu dee Macky yu fay de comme ni nga tuddee noonu Euh, bégal sa doom moom teral sa doom hmm. dara nekku ci macha allah hmm. bégal sa doom hmm. teral sa doom muul dara nekku ci waaye naka ngay bégalee sa doom waaye naka ngay teralee sa doom loolu jar naa xool euh, bu fekkente ni dañuy am na ko jar a gërëm gis naa la nga koy sànni xeer mais muudu beeboo ñu profité jàpp ci moom te jàppale ko muy maam maxtar Géey bu Jamra dafa jar a jàppale Moodu. dama wax rek boo weesoo këru diine yi ñu yaakaar. Moodu kan nga fi dégg muy topp mbir yi di xeexal lislaam tuddal ma tur rek. kon Mamadar Gueye jar na jàppale. Mm. jar na soutenir ci Sénégal ci wàllu diine ci côté boobu. Mm, ci wàllu mais waaw jar na ko jàppale parce que ni muy ci xeexalee diine yeneen bi li mu waxoon ne bu ngeen gisee loo xam ne rafetul. da mm. ngeen di taxaw xeex ci. wax ci lu ngeen mën seen alal seen kàddu seen làmmiñ su ngeen mënul ba mën loon dugg leen seen néeg ngeen jooy mhm. kon moom li mu ci def ñoom ñu sant di ko gërëm mhm. xam nga kii mi ngi wax sànq bay tudd ventilateur nga xam ni boo nekk ñun ñëpp nekk xel dañ ko daan dégg climatiseur day ni mhm. nelaw man sax nelaw naa sama yaay sax nelaw na façon yooyu daa woo ko dégg ah. xam nga yooyu xeetu fecc loo xe la yu la di ko moo waxee dëgg la ventilateur climatiseur day ni nelaw ah. man sax nelaw naa sama yaay sax jigéen ñi di ko fecc hmm. xam nga bu fekkee leen ci diine rek laa lay tontu waaw fecc dafa xaraam fecc li ñuy def na bii tànk yi jógul de waaw maa ngi ñëw fecc génnee say awra hmm. xam nga jigéen dafa tëju hmm. l'islam dafa sécuriser jigéen moodu ba jigéen amul tey ji bu ñu toogoon ci plateau bi rek diidi ni mu soloo rafet na wala mais dafa araam ci diine ah li mu soloo nii rafet na de yiw na de fii Sénégal mais diine àndul ji lii jot na de. Bambi lu mu sol rafet noonu rafetul. trop ci Sénégal ci aaday Sénégal. Hmm. Bambi la gën a xam ni diine àndul ci biir. te pourtant moom xam na ko de jàng na ko de. te xam na ko te pourtant mu ngi jël lu mu tudd affaire bi. greffage am def ba mu wàcc. ci sunu aada. boo leen gisee da ngay bëgg kontaan nit ñi toj tukkal nañu àdduna. Hmm. kenn dootul sol lu dàq la nu sol. Hmm. rafet na kenn du leen ci mere. mais muudu dafa am loo xam ne aayul bayasan laaj ma mooy lan. jaayu. suñu yaay yi ak suñu maam yi dañuy jaayu jaayu boo ko def dara nekk xam nga jaayu lan la sa loxo rek ngay jël yëngal yóbbu droite jëlaat sa loxo yóbbu càmmoñ jaayu fecc bi noonu la moom laa de ah man ah li ma gis du loolu de noonu la noonu li ma gis man fii bii noonu la bu ñu dégg asan bu ñu bañ a jaayante ah. laa fi gis waaw ak ak format bañ ko defee mais man loolu laa gis mais bu dee jaayu la mhm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu demee di ko tagg ci gàmm yi ci màggal yi Mm-hmm. mais fecc pourquoi taal yi dañ ciy fecc Moodu. loolu ñuy def moom lañ tuddee iltisaz. da ngeen ko organiser rek. pecc mu ñu waaw pecc mu ñu organiser la. Ah. maanaam organiser jaar ne organiser jaar ne. bien dit ndax pecc mu ñu organiser la ki koy def day jaayu dem droite jaayi dem gauche. Mm. gis naa ci boo xamante ni ci TikTok bi benn waaye mooy waaju neex jooju rek borom caay gi loolu ku ko xool daanu. Mm-hmm. kon pour wax la rek Baye Assane. bu dee ultisage la jaayu. dara nekku ci mais façon fecc yii xale yi jigéen ñi créé. Hmm. gis nga temps bi ci TikTok bi lu mat 33 fecc. Hmm. waa ji di ko nepp nettali hmm. depuis 1974 ba fii ñu toll. xeetu fecc moo xam daan nga ko dégg rek waa ji tudd na ko. moo lay wax ne li Modou wax dëgg la. Euh, euh, euh, yeneen fecc ngi ñëw. waaye na ñu xam suñu culture. nañu xam suñu diine li mu ñu mel ay didi bu ñu xamee suñu diine li mu ñu may rek yenn détails du ci dugg. bàyyi sa am na solo. kon mu ngi noonu. waaw di di loolu lañ andi woon si euh, kii bi. fait divers bi. fait divers bi. macha allah tubaab mm-hmm. fakka lan deete nga lu am solo.